waa ndaje mi daal tey li xew mooy suñu maire euh, président Serigne Boub ñëwoon na seet si ñu amoon na lu fi xewoon ci ay xale yoo xam ne yi daanaka ay xale la yoo xam ne la bëgg sax xamoo ko waaye xale yooyu ñun liñ ci wax rek mooy xale yooyu lépp loo xam ne ñun naqadi na ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi xale yu jàpp naa ne ñun ñoo ñu teg coono boobu ndax ñooy xale yi nekk ci marché bi ñun ñi xam ne ñooy liggéeykat yi. xale yi fi nekkoon ñun maanaam ñun yuuxu wun woon maire ñun lañ doon yuuxu ndax dafa am lu ñu seq ñoom te xamoon nuñ koy fajee ñu jàpp nii lañ koy fajee waaye ñun lañ doon yuuxu ñun doon bëggoon suñ xol jóg non li ñu seq moom mooy ay xale la ñu nekk ci marché bi da ngay jógee ci àll bi jënd saw jën ñu taxaw di ko sàcc liggéeyun yennuwun jëndun jaayun taxaw di sàcc loolu ñun nag ñu nekk di xeex ak ñoom ci loolu ñu jàpp ne na ñoom xëj na lii lañ ko mën a fajee ñu fajee ko loolu mais yuuxu woon sëriñ ñun na doon yuuxu jéem a maanaam li li leen naqadi li leen naqadi ci ñun ñu jàpp ne fii la mën a fajoo loolu indi coow li marché bi nag li ñu waxoon rek la ñuy waxaat euh, wax dëgg yàlla marché bi ku xamoon marché Kaolack ak na meloon nga xam ne marché bi wax dëgg yàlla fa mu nekkoon jógee na fa lépp jag na nag moom ku ne xam na ne amut ndax li may wax dama damay wax ne sa kër gi nga moomal sa bopp sax lépp jag yombut waaye wax dëgg yàlla marché bi am na lu ci soppeeku lu bëri lépp loo xam ne doon nañ ko jàmbat te nga xam ne moo gënoon a wax dëgg yooyu moom passé nañ ko am na lu des nag li des nag ñun duñ ñun duñu xuloo duñu xeex duñu saaga duñu yàq duñu toj ndax sama sëriñ Mawlaay Seex Alaaji des da wax day wax ne képp koo xam ne kii làq nga sa cër di yàq cërëb jaamu doo as gor ñun duñu xuloo duñu xeex ak ku fi man di doon ak ku mën di doon duñ la yuuxoo duñ la wax luñ la warta wax waaye nag euh, li ñu am soxla nga xam ne moo ñu métti nga xam ne suñu marché bi nga xam ne moo des ci marché boo ñëwee toog daan la ko jàmbat ne la kat defal nga ñu lii waaye des na nii léegi nag li des li des ñun jarul ñu di ko waxaat parce que wax nañ ko kenn ko war a wax te jàpp nañ incha allahu taala dana ko saafara ndax moo waxoon fii taxaw ne danaa saafara seen i seen jàngoro ci marché bi kon nag su commencé ba nga xam ne daanaka li ëpp ci marché bi doon aw métti saafara na ko kon li ci des ñun danañ am yaakaar dana àgg ak ñun loolu rek lañ. service de gestion biñ fi teg man bi ma ñëwee liñ liggéey ci benn at dama ci bëgg koo xam ne nii trésorier deux cent soixante-deux mille nga fekkoon tey ñu ne am nañ benn neuf millions nga wëlbati ko ah fekkoon fi ñu amoon quatre mois de euh, arrière salaire amatul nga fekkoon fi machine glace doxul mu am fi nga fekkoon terre plein bi terre bi oto bi masaa da ñëw say lam dagg nga ñëw fekk mu réglé kon dañ ci sant yàlla xam ne marché poisson yi ci Sénégal yëpp bu meloon noonu mu baax du man nak man dama leena tracer yoon bi tek leen mais ñom seen engagement mo ci nek xalé yi ñi wax c'est vrai que deug la ndax man dama dañ kumpa du ma daw problème bima leen déggé ñi wax lima ci jotta dégg ñi ngi wax sonko sonko déggat na ma paré nak ma dajé ñom ne leen lan la mais waxuñ ma dara luma mëna japp waaw enfin lolo tax ma dikkat fi ne leen lan la légui nak bu ay xalé la yo xam dañ fi nek di yaq liggéey bi di randal war nañ leen mëna identifier ndax nit ki doo ko danga koy former moom mu xam li muy def ndax xam na yaakaar naa bari na am na ñoo xam ne wala bu ñu xoolee ne nag ay samba boole yu yàq rek ñu fexe def sécurité bi ba nga xam ne nii ku fiy dugg da nga am badge su dee dangay jënd dangay dem di jënd ñoo xam ne da ngay jënd sécurité bu doy am na mu doy am fi ku fi bëgg a nekk di perturber sécurité bi defante ko yow parce que fii euh, lieu public privé la loolu dafa war deuxième bi mooy wax nañ ne beneen machine glace kooku yaakaar naa ne dana gaaw. danañ fexe rapidement parce que mooyu ko defar am na fi ak sécurité ba lamp yi neneen rek la beneen bi ki des mooy xay gi xay gi nag dafa nekk phénomène boo xam ne ni yàgg na mooy fépp la am ci Sénégal mooy genre dañ fiy bàyyi mois marché bi demaat fële loolu nag danañ ko waxtaanee buñ ko waxtaanee ba déggoo ci dara ñu dem seeti préfet moom moo ñu mën a dimbale pour loolu dañ incha allah ndax mënuñu am marché bu toll nii liñ war a fexe ñëpp ñëw fi mais waruñu fexe ñeneen di lal feneen di ko yàq. jën dafa cher amu ci solution ma leen ci wax nañ ma jàppale. ma gañ ma ma nekk président la république jën géej gi ñuy wax xaaral géej gi ñuy wax ne dañ koo jaay moom buñ ko jaayaan tamit danañ ko xàcc moom suñ jën moo am jën bu fekkee jën bu doyee du cher ah danañ fexe ba ba mu doy te du cher. danañ fexe tamit fii ci kaw lax ñu développé ay pisciculture mi ngi ci sama programme ren danaa fexe ba nga xam ne nii une valeur de 30 million danañ ko investir ci bassin yi nekk foofu te ñoom lañ koy àndal loolu danañ ko fexe ñu def ko incha allah.